naa la bu ma jugee foofu damay ñëw ci ñan ñi nga xamante ne ñooy xuloo ci marque jàmbur yi di ci xuloo dama bëgg nag ngeen dem xuloo ci padam njaxewu euh, Maria Sine may su bige Maria Sine Mar padam njaxe yooyu nga xamante ne fii lañ ko defaree fii ci suñum réew laa bëgg rek ngeen dem commencé ci xuloo nag te bàyyi marque jàmbur yi nga xamante ne ñoo nekk Europe ngeen di ci xuloo ndax nee naa la safewul te mbéy ci sawewu tànk gis nga nit bala ngaa laax jaay da ngay laax lekk suñu dëkk bi am na ay réalité yoo xamante ne am ay fabrication yoo xam ne ay suñu doomu Sénégal ñoo koy fabriqué muy xale yoo xam ne fii lañ juddoo fii lañ màggee waaye nekk fi tekki fi am fi jom am fi fullaak faydaak personalité marque jàmbur yi ngeen di xuloo yéen laay wax yow Mbathio Ndiaye Mama Vulgaire ak euh, Mame Ndiaye Savonné moom yéen laay wax damaa bëgg marque jàmbur yi ngeen di xuloo di ci xeex di mattante ka gàjjante ngeen bàyyi ko Maria Sine may sa bigé Maria Sine sol na ay dàll yoo xam ne padam njaxe la te fii lañ ko defaree ci sunum réew yàqiti wulaa naa jël leen ko nag ngeen ngeen daal di koy euh, ki ko ki ko ki nga xamante ne moo ko jaay ngeen defal ko publicité ah waaye ay ñoom joori nag ña ca kaw yàqiti wulaa naa bàyyi leen euh, kii nag yéen samba àllaare ngeen de samba àllaare ngeen padam njaxe yi ñuy defar fii marque yooyu nga xamante ne Euh, suñu star yi ñu ngi koy sol ku xam padam njaxe nag xam ne marque plastique lañ ko defaree muy euh, matière pano lañ ko defaree Mariasine sol ci bu maron bu rafet boo xamante ne xam nga moom nee naa la lu mu sol rek marque la waaye lu mu sol da koy jàpp waaye lu mu sol rek da koy jox valeur boo xamante ne yow boo ko gisee rek da ngay am envie sol ko Euh, padam njaxee sax daf ma ko nar a may man mii ma di ko sol xam ngeen man dama bëri feeling bëri bëri style bëri feeling waaye nee naa la padam njaxe yooyu nga xamante ne Wally Seck sol na ko moom laa bëgg nag ngeen dem nag xoola xeccoo ko xuloo ci xeex ci daal di koy defal publicité bu doy waar ndax doomu Sénégal yi ñoo ko liggéey bàyyi leen seen sàmba àllaar gi ngeen nekkee dem ca dëkku jàmbur ba bu ngeen jugee dem Chine ak ay France ak eh, kii yooyu nu mu tuddati ay Dubaay ak yooyu di xëccoo seen bagage yi nga xamante ne ñoo nekk foofu yaaxayti mu laanaa am nga lu ngeen xëccoo padam njaxe yaa ngi toj réew mi padam njaxe yi mi ngi tukkal àddina waalee ko sol tànka ya nag <laughs> waali nag Maria Sine sa bige Maria Sine maar yaayu soxna danga koy delloo danga koy dolliwaat ndax nag li ngay sañse te kan moo lay sañseel soxna ay dara karaara li ngay sañse temps yi cula de xale bi li muy sañse temps yi cula jacket ba nga xamante ne moom la ca teg jacket bu doy waar mais man padam njaxe yi man moom ay rey dallu padam njaxe yi boo gisee ni mu ko valoriser ah waay waay waay dem leen dem leen ngeen xuloo ci loolu dem leen ngeen béy ci seen wewu tànk bàyyi leen puukare gi sàmba àllaare gi ngeen di bàyyi bàyyi leen sàmba àllaar gi seen doomu réew a ngi liggéey xarañ bay bëgg a dee padam njaxe yamuy yamu sol bu ngeen demee ngeen xëccoo ko jaay ci jaay mark euh, Sénégal euh, xoolal jomaay euh, mi ak ak ak soxnaam li ñuy sol du ngeen dem ngeen xëccoo lool balaa maa dee ngeen dem Chine wala Dubai wala ngeen dem euh, Europe di xëccoo marque jàmbur ya nga xamante ne defaru leen ko moomu leen ko seen doomu réew defaru ko samba àllaar baaxul samba àllaare baaxula ah. yow mama vulgaire yow laay wax mama vulgaire mbaacoñ njaay maam njaay savon mbaaco nag ngay saan moom laax bu ñëw mu nga ca mooy sow mbaaco laax bu ñëw yaa ngi ca sama xarit bi fii la Bijou Ngoné génnoon nga xuloog moom ma faral la waaye tey tey duma la faral duma d'accord ak yow man damay bëgg nga bay ci sawewu tànk tey duma la faral duma d'accord ak yow xëccoo leen li suñu doomu réew liggéey moo gën ngeen di xëccoo loo xamante ne nii bokkul ci yéen moomu leen ko waaye yow Sénégal moom xanaa amul ñuy liggéey fii ñu xarañ ah dimbali leen nit ñi bàyyi xuloo beeg bi te ngeen xëccoo nag li nga xamante ne seen doomu réew ko liggéey ah? nee naa la bu ma jugee foofu fan laay ñëw xale bii ñu rey rey bu ñaaw lañ ko rey waatee ñoo gën appartement yi nag te dellu si kër nday yaa kër baay ya waaye liggéey yi moo demee noonu ndax da ngay liggéey sori sa yaay bëgg koo dimbali bëgg dimbali sa bopp ñu ne dañ lay rey ki nga rey du tax nga lekk wërsëgam ndax wërsëg yàllaa koy joxe kuy mer kalaamel sa nday mbaa nga kalaame borom bët bu réy bii bàyyi leen nit ñi ngeen di fekk ci seen appartement yi di leen rey te yéen ñi dëkk ci appartement yi bàyyi leen yëfu luux njuur wuru jag njuuj gi jubal leen dëggal leeral bu leen dugalanteeg ak génnalante je pèse bien mes mots néew ma xale bi daa dugalanteeg génnalante boo ñu rey ko de dama ne ku dëkkati ci appartement na nga xam ña ngi fay indi ña ngi fay dugal ña ngay dugalante ak ña ngay génnalante boo génnee tëjal booy ñëw xoolal gauche ko xool droite ut ku la gunge ba nga dugg sa biir kër tëj awaa Sénégal nag mucc daal ñu ne mucc fi daal du fi am a ah, Sénégal a ngi bëgg a metti de ñu ne daal kenn du fi mucc ah yàlla baax na bu leen ma seetaan nii ma belli nii naay yi xam nga man faramaaren bi temps yi damaa belli naay bu leen ma gis ma belli nii naay yi ngeen fàttee ñëw la soleil jàkkaarloog dexu maam sangi chez Adams di lekk seeni gambas crevette calamar coof poulet frite poulet yaasa brochette de lot dorade coof ngeen di ko lekk ñu leen koy defal grillade bu safa safa saf langous cameron sigal ngeen di ko lekk rek muy neex xoola brise bi di leen dugg bu leen seetaan sama vidéo ba mu neex a neex a neex ngeen fàttee ñëw añ si nee naa la dinaa leen indil vidéo boo xamante ne environnement bi lay wax ci environnement bi environnement bi nga xamante ne eaux et forêts yi ñoo doon def nettoyage di bale xam nga ñoom dañoo set nee naa la bu ma jugee foofu damay ñëw ci ñan ñi nga xamante ne ñooy xuloo ci marque jàmbur yi di ci xuloo damaa bëgg nag ngeen dem xuloo ci padam jaxewu euh, Maria Sin may su biige Maria Sin Mar padam jaxe yooyu nga xamante ne fii lañ ko defaree fii ci suñum réew laa bëgg rek ngeen dem commencé ci xuloo nag te bàyyi marque jàmbur yi nga xamante ne ñoo nekk Europe ngeen di ci xuloo ndax nee naa la safewul te mbéy ci sawewu weewu tànk gis nga nit bala ngaa laax jaay dangay laax lekk suñu dëkk bi am na ay réalité yoo xamante ne am ay fabrication yoo xam ne ay suñu doomu Sénégal ñoo koy fabriqué muy xale yoo xam ne fii lañ juddoo fii lañ màggee waaye nekk fi tekk fi am fi jom am fi fullaak faydaak personnalité marque jàmbur yi ngeen di xuloo yéen laay wax yow Mbathio Ndiaye Mama Vulgaire ak euh, Mame Ndiaye Savonné moom yéen laay wax damaa bëgg marque jàmbur yi ngeen di xuloo di ci xeex di mattante ka gàjjante ngeen bàyyi ko Maria Sine may sa bige Maria Sine maar sol na ay dàll yoo xam ne padam njaxe la te fii lañ ko defaree ci sunum réew yàqiti wulaa naa jël leen ko nag ngeen fabriqué ngeen daal di koy euh, ki ko ki ko ki nga xamante ne moo ko jaay ngeen defal ko publicité ah waaye ay ñoom joori nag ña ca kaw yàqiti wulaa naa bàyyi leen euh, kii nag yéen samba àllaare ngeen de samba àllaare ngeen padam njaxe yi ñuy defar fii marque yooyu nga xamante ne Euh, suñu star yi ñu ngi koy sol ku xam padam njaxe nag xam ne marque plastique lañ ko defaree muy euh, matière pano lañ ko defaree Mariasine sol ci bu marron bu rafet boo xamante ne xam nga moom nee naa la lu mu sol rek marque la waaye lu mu sol da koy jàpp waaye lu mu sol rek da koy jox valeur boo xamante ne yow boo ko gisee rek da ngay am envie sol ko Euh, Padam Njaxee sax daf ma koo nar may man mii ma di ko sol xam ngeen man dama bari feeling bëri bëri style bëri feeling waaye nee naa la Padam Njaxee yooyu nga xamante ne Wally Seck sol na ko moom laa bëgg nag ngeen dem nag xoola xeccoo ko xuloo ci xeex ci daa di koy defal publicité bu doy waar ndax doomu Sénégal yi ñoo ko liggéey bàyyi leen seen sàmba àllaar gii ngeen nekkee dem ca dëkku jàmbur ba bu ngeen jugee dem Chine ak ay France ak eh, kii yooyu nu mu tuddati ay Dubaay ak yooyu di xëccoo seen bagage yi nga xamante ne ñoo nekk foofu yaaxayti mu laanaa am nga lu ngeen xëccoo padam njaxe yaa ngi toj réew mi padam njaxe yi mi ngi tukkal àddina waalee ko sol tànka ya nag <laughs> waali nag Maria Sin bay sa bige Maria Sin maar yaayu soxna da nga koy delloo da nga koy dolliwaat ndax nag li ngay sañse te kan moo lay sañseel soxna ay dara karaara li ngay sañse temps yi cu de xale bi li muy sañse temps yi cu la jacket ba nga xamante ne moom la ca teg jacket bu doy waar mais man padam njaxe yi man moom ay rey dallu padam njaxe yi boo gisee ni mu ko valoriser ah waay waay waay dem leen dem leen ngeen xuloo ci loolu dem leen ngeen béy ci seen wewu tànk bàyyi leen puukare gi samba àllaare gi ngeen di bàyyi bàyyi leen samba àllaar gi seen doomu réew a ngi liggéey xarañ bay ba a padam njaxe yamuy yamu sol bu ngeen demee ngeen xëccoo ko jaay ci jaay marque euh, Sénégal euh, xoolal jomaay euh, mi ak ak ak soxnaam li ñuy sol du ngeen dem ngeen xëccoo lool balaa maa dee ngeen dem Chine wala Dubai wala ngeen dem euh, Europe di xëccoo marque jàmbur yaa nga xamante ne defaru leen ko moomu leen ko seen doomu réew defaru ko Samba àllaar baaxul Samba àllaare baaxulaa ah. yow mama vulgaire yow laay wax mama vulgaire mbaacoñ Njaay maam Njaay savon mbaaco nag ndeysaan moom laax bu ñëw mu nga ca mooy sow mbaaco laax bu ñëw yaa ngi ca sama xarit bi fii la Bijou Ngoné génnoon nga xuloog moom ma faral la waaye tey tey duma la faral duma d'accord ak yow man damay bëgg nga béy ci sawewu tànk tey duma la faral duma d'accord ak yow xëccoo leen li suñu doomu réew liggéey moo gën ngeen di xëccoo loo xamante ne nii bokkul ci yéen moomu leen ko waaye yow Sénégal moom xanaa amu ñuy liggéey fii ñu xarañ ah jo dimbali leen nit ñi bàyyi xuloo beeg bi te ngeen xëccoo nag li nga xamante ne seen doomu réew a ko liggéey ah? nee naa bu ma jógee foofu fan laay ñëw xale bii ñu rey rey bu ñaaw lañ ko rey waa tey ñoo gën appartement yi nag te dellu si kër nday yaa kër baay ya waaye liggéey yi moo moo demee noonu ndax da ngay liggéey sori sa yaay bëgg koo dimbali bëgg dimbali sa bopp ñu ne dañ lay rey ki nga rey du tax nga lekk wërsëgam ndax wërsëg yàllaa koy joxe kuy mer kalaamel sa nday mbaa nga kalaame borom bët bu réy bii bàyyi leen nit ñi ngeen di fekk ci seen appartement yi di leen rey te yéen ñi dëkk ci appartement yi bàyyi leen yëfu luux njuur wuru jag njuuj gi jubal leen dëggal leeral bu leen dugalante ka génnalante je pèse bien mes mots néew ma xale bi daa dugalante génnalante ba ñu rey ko de dama ne ku dëkkati ci appartement na nga xam ña ngi fay indi ña ngi fay dugal ña ngay dugalante ak ña ngay génnalante boo génnee tëjal booy ñëw xoolal gauche ko xool droite ut ku la gunge ba nga dugg sa biir kër tëj awaa ah, Sénégal nag mucc daal ñu ne mucc fi daal du fi am a ah, Sénégal a ngi bëgg a metti de ñu ne daal kenn du fi mucc ah, ah yàlla baax na bu leen ma seetaan nii ma belli nii naay yi xam nga man faramaaren bi temps yi damaa belli bu leen ma gis ma belli nii naay yi ngeen fàttee ñëw la soleil jàkkaarloog dexu maam sangi Chez Adams di lekk seeni gambas crevette calamar coof poulet frite poulet yaasa brochette de lot dorade coof ngeen di ko lekk ñu leen koy defal grillade bu safa safa saf langous Cameroun cigale ngeen di ko lekk rek muy neex xoola brise bi di leen dugg bu leen seetaan sama vidéo ba mu neex a neex a neex ngeen fàttee ñëw añ si nee naa la dinaa leen indil vidéo boo xamante ne environnement bi lay wax ci environnement bi environnement bi nga xamante ne eaux et yi ñoo doon def nettoyage di bale xam nga ñoom dañoo set dinaa leen indil vidéo boo xamante ne environnement bi lay wax ci environnement bi environnement bi nga xamante ne eaux et forêts yi ñoo doon def nettoyage di bale xam nga ñoom dañoo set fii dañu am benn commandant bu dynamique ah colonel Diop moom day regroupé euh, ñi nga xamante ne ñoo fi nekk rek daal di yóbbu ca plage ba ñu nettoyé géej gi ba mu set wecc en tout cas di ngeen ko gis ci sama ay chronique ku dëkkati ci appartement wutal sa caméra de surveillance nga activé ko au niveau de police waa police sax nañ lay gis yow booy tëdd nañ lay gis booy sangu nañ lay gis ngay lekk ñu lay gis ngay naan ñu lay gis activé leen ko au niveau de police mooy tax ngeen mucc gis nga réew mii ñu nekk dafa danger léegi nit ñi fi mu nekk nii lekk yee tax dañuy gaaw di reyaate sama vidéo xoola bere fag yaa xayti mulaanaa du ko am yow laay wax yow Mbathio Ndiaye maam Ndiaye Savon mama Bilguer bu leen ñu ray lii ngeen di xeex ak xëccoo ko xuloo moomu leen ko padam njaxe waali sekk yi laa bëgg ngeen dem xëccoo ko awa yàlla baax na nag hello guys nee naa la environnement ci les gars de environnement ñoom ñoo yor environnement wàllum set setal ci euh, plage bi géej gi mangrove bi mu nekk ay nit ñu xarañ nag ndax wax dëgg fa yàlla ñun dañuy rafetlu seen liggéey parce que c'est des gens yoo xamante ne xam nga géej ak toile yi nga xamante ne ñoo ci nekk du baax ci ndox mi waaye nee naa la ñoom a chaque fois dañuy ñëw di ko nettoyer di ko bale di ko defar ba mu baax en tout cas Somone daal dëkk bu set la dëkk bu neex dëkk bu xeewale dëkk boo xam ne boo amee respect réciproque yaru rek yow da nga fi am lépp li nga xamante ne moom nga bëgg ndax nee naa la dëkk bi dëkku naataange la dëkku xeewal fii nag nekk dexu Mame Sack ñoom ñu demoon ci plage bi daal di koy nettoyer ba mu set c'est des gens yoo xamante ne c'est des eaux et forêts commandant bi moo nekk na la ci biir waaye commandant bi moo nekk ne ci biir ah ñu koy jël ci bato bi bëggoon naa mu wax ay kàddu mais comme bon moom mi ngi dem ah nee naa ko mënoon nga ma woo ma balewaale waaye bon beneen yoon mooy dàq en tout cas ñu nekk ay nit ñu dynamique nag ay nit ñoo xamante ne vraiment vraiment vraiment euh, dañ dañ dañu set daal parce que euh, gis nañu ay géej yu bëri yoo xamante ne euh, toile yi ak mbalit bi day dem ba yàq géej gi mais fii ci Somone dañu set dañu set vraiment parce que dañuy nettoyer ba mu set raxas ba mu set defar loolu nag c'est pas évident gis nga gaal baa ngi di leen yóbbu gaal bi nag ça m'a rappelé les gens qui prennent des bateaux pour aller en Espagne et Espagne y a rien là-bas maintenant donc munoon ngeen gëm seen bopp rek toog rek daal di liggéey ci dëkk bi def comme ni ni ñuy def parce que wax dëgg fa yàlla ku liggéey am ku liggéey tekki ku liggéey am waaye nee naa la ñii moom ay jàmbaar lañu ay gaynde parce que nag c'est pas évident nga daal di nekk ci sa dëkk ne fii nga nekk nii ah da ngay fexe ba doon fi dara en tout cas loolu daal loolu daal ñoom daal wax dëgg fa yàlla kontaan naa rafetlu naa seen liggéey parce que euh, somon nag somon man dama ko bëgg man sama dëkk la man parce que dafa dafa neex dafa neex en fait gis gaa yaa ngi nii di dem ah di dem ñibbi bale nañ plage bi nettoyer environnement bi ba mu set oh la lagune c'est la nature jëlal ma le soleil dëkku maam sang bii nga xam ne lépp lu ma am rek moom ma ko may ah abacho borom langus yaa ngee ñoo ñee ñee indi client langus yi jël suñu suñu payot yu nice yi suñu transat yi macha allah le soleil daal xaaral ma woon leen tableau le soleil bi sax ngeen ngeen ko gis le soleil moom c'est le paradis vraiment vraiment vraiment asmalika ngi nii yeyeye asmalik waaw gars yi dañuy ñëw langu si ñëw waa langu si nangi nii aba show aba ñoom moom ay client langu si yu baax la ñuy indi non non lii dafa neex nature bu neex a neex a neex a neex xoolal serveuse yi ñoo ngi nee toog baar bi baar bi nag dafa nekk en travaux parce que dañuy defaraat tu